incliné wu parce que ñaar ñu taxaw lañ te tolloowuñu dimension mais dafa am benn woykatu français bu ni papa tu es grand mais je suis des humains qui vagabondaient wala yu doon vaquer de façon très innocente au paradis jus jusqu'aux humains yi nga xam ne ñoom nee nañ pare nañ pour coloniser la planète Mars est-ce que entre temps ils sont pas devenus grands maintenant ci lu mu entre l'humain et le divin quelle est la différence salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu sang bi bu baax di ko ziyaara di nuyu maam Babacar di yóbbanti tam ci sa góor gi suñuy nuyu di jaajëfal suñu mbokk aali ci façon bi nga xam ne moom la exposé yaakaar naa ni bu delloo ci laaj boobu borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ni faatiru samawati wal ard jacala lakum min anfusikum azwaajan wa min al ancaami azwaajan yadra'ukum fii laysa ka mislihi shay wa huwa samiu albasir yaakaar naa borom bi bi ko ñu bari di melal ci façon bi nga xam ne ni ñoom lañu jàpp ni noonu la borom bi mel borom bi bàyyi fa loolu yépp melal boppam ci laysa kamislihi shay arab yi di wax itam ni la shay amislahu comme moom nuroowul ak dara waaye itam lenn melul ni moom te suñu mbokk aali wax na ko ci façon bi nga xam ni ci la bindee waaye ci yu mu bind daf ci bind lu ñuy tuddee temps mu bokk ci sunna sunnaam yi waaye mu bind espace bind itam matière mu jël matière tënk ko ci temps ak espace ak matière itam li muy bari yépp mu taamu ci doomu aadama pour lan pour doomu aadama mën a nekk xalifaam ci kaw suuf waaye yaakaar naa ni mu ne ko nag xilaafu boobu pour mu mën a nekk il fallait que doomu aadama neexoo ak borom bi te doomu aadama itam pour mu neexoo ak borom bi faw mu nuru borom bi doomu aadama war a nuru borom bi nga xam ni sa kamis shay ndax noonu la melalee boppam borom bi nga xam ni temps tënku ko espace tënku ko waaye borom bi nga xam ni asamaan ak suuf mënul yaatu ba ëmb ko borom bi nga xam ni moo fi jiitu lépp te kenn jiituwu ko waaye itam bu fi lépp jugee itam moo fiy des borom bi nga xam ni moom moo fés te dara tiimu ko waaye moo nëbbu itam te dara làqu ko léegi nag nit war a nuru borom boobu ci ban façon ak ban nit waaye pour loolu mën a nekk bu dee ci côté uluhiyaam du mën a nekk ndax foofu sédd fa kenn waaye kon borom bi faaw mu wàcc ci rububiyaam pour mën a jëflanteeg nit pour nit mën ko nuru nit amul woon borom bi daal di bind nit suñu mbokk aali wax na ko léegi mun nañ ni al insaanu mawjud wallaahu mawjud yàlla am na waaye nit am na waaye ñaari am yi nag du benn ñaari existence yi itam du benn ndax bu dee nit ak amam lu dagan la du loo xam ne ni farata la waaye amug yàlla nag farata la wujudun laa yusaabihuhu wujudun wujudullaahi xalladahul wujubu suñu maam Cheikh Ahmad Tijaani si moom moo ko wax di wax ni nekkuk yàlla farata la waaye itam borom bi ba tey pour nit jëflanteem ak borom bi mën a yomb pour nit mën koo nuru mu sedd ko ci xam-xam àllamal insaana maa lam yaalam waaye tam lim ko ci sédd yi tam tuuti la ko ci tànk bu dee yàlla nag dangay gis ci alquran lu ci bëri day melal boppam tudd baatu alim bu dee nit dañuy wax alim wala allaama wala leneen nga gis ni bu dee borom bi axaata bi kulli shay'in ilma dara umb ko dara rëcc ko te nit nag xam-xamam dafa am fu muy yem borom bi itam séddu ko ci alxayaat muy dund parce que nit pour mu mën incarner xilaafa bi ci kaw suuf faaw mu dund waaye dafay dund borom bi di dund waaye est-ce ñaari dund yi benn ndax nit dundam lu mu gudd gudd fan bés dina ñëw mu am fu mu yem waaye suñu borom nag xayyun laa yamut moom ku éternel la moom du fi musa jóge mu seddaat ko ci aussi itam lu ñuy wax as-sam'u wal basar muy dégg ak gis waaye tam waxu ko mu déglu fi koy xaaree ci dégg bi mooy mu dégg loo xam ni farata la wata ayaha uznun waaxiya waaye itam fi koy xaare ci basar bi mooy mu amee basiira mooy mu gis li nga xam ne ni mooy xaqaayiqul umur li nga xam ne nii moom la yàlla dëxañ ci biiram li yàlla dëxañ ci kawnu bi ci univers bi nga xam ne ni moom lañ nekk kon nekkul ni rek daf koy xaare mu xool nii rek waaye mu xool xam li nekk ci biir foofu la koy xaare waaye tam ba tax ba tey itam taxul mu yem ak sàmmu suñu boroom ak basaram ndax moom laa tudrikuhu l absar wa huwa yudrikul absar même sax ci kamaliya borom bi sedd na ci nit waaye foofu nag mu laaj effort mooy nit ki mooy def yitte ba àgg ci martabatul kamaal waaye bu fa àggee itam bokkul ak kamaalu suñu borom ndax suñu borom kamaal yaam mutlaq la te bu dee kamaal yu nit maxduud la kon dafa am foo xam ni foofu la yem kon ci nii noonu la borom bi préparé les jaam bi terrain bi pour que man koo nuru diggante ki nga xam ni nekkam dafa war ak ki nga xam ni nekkam dafa dagan ak séparation bi nga def différenciation bi nga def ñoom ñaar seen relation ban xeetu relation la war a nekk relation d'autorité de paternalité ou bien une relation pédagogique waaw yaakaar naa relation nit ak doomu aadama mun nañ jàpp ni relation pédagogique bi waaye itam mun nañ wax itam ni amrun bay na am rey ndax fenn fi di nga gis mu mel ni borom bi day wane autorité am ci kan ci kaw jàmm bi di wane domination ci jaam bi waaye feneen fi ci des itam nga gis ni ab loolu yépp dafa tàllal nit loxo raxma pour que nit mën a am ak moom relation woo nga gis ni boo demee ci alquran borom bi day wax ni wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi foofu mu fay tudd baatu domination maanaam borom bi nim ñu jekkoo nim ñu dominer nim ñu notee waaye ci aaya bi mu tudd fa ñaar muy alqaahir te mu bokk ci turam yi ak baatu fawq muy fawqiya bi pour nag relation boobu mën a nekk mooy nit day nangul yàlla ak yàllaam waaye moom nit itam mu nangu ni moom créature la ci kanamu borom bi nangu itam jaam bi nga xam ne ni moom la doon loolu moo tax nag borom bi ci domination am yu mu ko notal mu jël lu ñuy tuddee azalaam mu notee ko ci an nuur muy leer jël lu ñuy tuddee al adam mu notee ko ci al wujud jël lu ñuy tuddee al baatil notee ko ci al xaq bu ñëwee ci baatu fawqiya bi ndax borom bi domination bi dafa nekk loo xam ni dafa tiim jaam yi rekk li suñu maam daan wax daan mel ni màgget goo xam ne daa toog ci ruqam rekk yore yatam di konkongaan ku ko neex waaye demewul noonu fawqiya bi ci lépp la mooy bu ñëwee ci iraadaam dañuy gis ni iraadatuhu fawqa kulli iraada mooy namm namm suñu borom dafa tiim mboolem luy namm namm keneen ku man ci doon ku dul borom bi waaye itam nga gis ni euh, ndigalam bu joxee ay ordre amul beneen ordre boo xam ne nii moom di nga féete kaw ndigalu borom bi bu ñëwee ci sunnaam itam nga gis ne sunnaam aussi itam dafa tiim sunna yépp loolu moo tax sunna borom bi bu jugee beneen sunna boo xam ni dafa taxaw euh, ñu tase su boobaa sunna boobu dafay xaar pour sunna borom bi lu dul ni li nga xam ni moom la ñu sang bi jàngal ni lu dul sunna boo xam ni dafa ëpp doole sunna boobu beneen bi ci des mooy machi am aussi nga gis ni moom itam dafa tiim bépp machi a waaye itam dafa tiim lépp lu manti doon ci loolu nag bi nga xam ni xam nañ ni borom bi mooy kii xam nañ ni itam nii lañu notee am ñoo xam ni teel nañoo nangu ndax li aali wax sànq xam ni wiiri wiiri jaari ndaari moo tax ñu teel a nangu ci kanamu borom bi xam ni itam li leen borom bi doon wax gis nañ dégg nañ waaye itam dund nañ ko moo tax ñu taxaw ci kanamu borom bi ni ko sami'na wa ata'na waaye itam am ñeneen ñoo xam ni ñoom donte gis nañ dégg nañ dund nañ sax sunna boobu noonu wala sax dund nañ qahriya borom boobu waaye nag istakbaru wa tawallaw dañoo féttéerlu rëy rëylu ndax lan ndax seen intérêt àdduna tax ñu lànkal borom bi ci côté boobu. oustaz pour pour euh, dernière question bi ci ki la tàllal loxo teg ci laytaay la mais ci benn aspect tam mu la bu la ne fay na tasawun promesse la wala mise en waaw ki la tàllal loxo. pour ngeen neexoo donc bu la nee fa ay na ñaar yépp la parce que ñaar ñoo nekk ci kanamam mooy ki nangu ak ki féeteerlu bu dee ki nga xam ni dafa féeteerlu borom bi wax na ko te aali ñëw na ci sànq mooy yàkkamtiwu leen fazaruhum yaxuudu wa yalaabu xatta yulaaqu yowmahum alladi kaanu yuwaadun bàyyi leen rek ab temps bu ndaw rek ab diir nga bàyyi leen ñu dund ci seen bànneexu àdduna te xam ne bés dina ñëw ñu taxaw ci seen kanamu borom xam ne nag wiiri wiiri jaari ndaari borom bi ni leen fa ay na tazabuun fan ngeen rëcceeti loolu moo dal firawna parce que na ak pouvoir yi mu amoon yépp dem ba taxaw naan ana rabbukumul aala man maay seen borom bi gën a kawee et pourtant xam na ni sax moom loolu li mu wax daf ko wax nii rek waaye gëmu ko ndax bés ba nga xam ni am na bés ak Muusa dañu tase ca baxaru xalsuum ba nga xam ni firaaw na dem na ba wóor ko ni fii nii situation bi mu nekk amul benn bànqaas boo xam ni mën na cee jàpp pour sauver lu dul ni laa ilaha illa allazi amanat bihi banu israil mu doog a nangu nag waaye foofu wees na fa ay na tazahabuun waaw booba wees na am keneen na koo xam ni ki nga xam ni moom teeloon na nangu xam ni wiiri wiiri jaari ndaar yi borom bi nag di ko jàngal ni nag ku seddu da ngay gëm te soo nangoo da ngay wóolu comme nangu nga nag wóolu nga borom bi kon nag amatul looy wuteeti feneen parce que li ngay wuti feneen yépp am na fii walillaahi xazainu samawati wal ard comme nag moom moo am xazainu samawaati wal ard doyloo ko rek nga wékku ko sa bopp bàyyi ko moom waaw jërëjëf oustaz abdullah Lamine mën nga dem en Lamine ñu ngi lay nuyuwaat. wa rahmatullah ñu ngi lay fay taala di nuyu suñu kilifa si Cheikh Ahmada Tijani di nuyu mbokk yi nga xam ne yépp ñoom lañ bokkal ci tay